meilleur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 de Ngent suñu numéro téléphone di 77 094 83 30 wala 77 244 15 45 c'est Diaspora Sope Nabi votre satisfaction nous tient à cœur jaaraama Diaspora Sope cher jenteende di enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko sud du quotidien mi del soit ci proposition de loi bi nga a jubbati nag seen règlement intérieur bi yéenekaay bi dañoo xamal ni jamono ji kenn xamul ban tànk lay assemblée nationale fi mu nii di feccee ndax mën nañu comprendre bañ dugalee proposition de loi bi ba léegi si amul benn yëngu-yëngu benn paalaa la wax defaguñ ko pour mën a jubbati seen règlement intérieur bi muy mel na xëccoo nag am sukkandikoo ci biir yéenekaay bi premier ministre Ousmane Sonko moom lu leer la waxoon fii ba le 15 laa la wax bu fekkee ne assemblée nationale bii jubbantiwul règlement intérieur intégré nag déclaration de politique générale du premier ministre man su boobaa du dem ci assemblée nationale mën naa créer beneen cadre boo xamante ni fa defee sama déclaration de politique générale li mel nag yéenekaay bi xamal nañu ne waa assemblée nationale na lool presque ay ba léegi jagleel ko suñu pétrole gi nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi Sénégal bokkagul ci kuréel gi nga xamante ni réew yi exploité pétrole gi ñu ci xamal ni suñu pétrole gi nga xamante ni commencé nañ koy exploité ca Sangomar te ñu dénkoon ko Woodside Energy di compagnie australienne mu nekk en partenariat ak Petrosen boobu la ñu jàpp ne Sénégal gi nag dafay bokk ci organisation des pays exportateurs de pétrole waaye yéenekaay bi mu ngi xamal ni Jeune Afrique bi mu contacté projet la ñu ko xamal moo di discussion yi mu ngi continuer ba léegi suñu ministre bii di Birame Souleye Diop moo ngi waxtaan ak kilifa organisation bi ni mel damooy organisation des pays exportateurs de pétrole benn conclusion nag fi mu nii amagul yéenekaay bi dañu xamal ne Sénégal nag pour mu bokk ci membre yi il faut que au moins organisation bi ni mel nag daal di def daje pays yi nga xamante ni membre organisation bi ni mel lañ ñoom ñooy voté su boobaa ndax Sénégal bëgg nañ mu bokk ci organisation bi waaw wala déet seen rencontre yii nag ñaari yoon dong lay doon ci at mi ñu koy exploité pétrole bi ba léegi si dafa guñu rencontre bay voté nag pour Sénégal gi bokk ci organisation des pays exportateurs de pétrole l'observateur moom def taxaw seetlu ci doxalinu état bu Sénégal bii ay mission am léegi armée bi la koy jox bi la bañ ñi politiser nag yenn ci ay mbir yoo xamante ni ci bi la war a jëm yéenekaay ba ko dénk nag ca CEDEAO mooy yenn ci ay réew yoo xamante ni génnoon nañ ci kuréel gi ni mel moom président Bassirou Diomaye Faye dem waxtaani ji fexe la tuuna ba réew yooyu daal di dellusiwaat ci CEDEAO ca wet ga yéenekaay bi dañu xamal ne Youssou Madjiguène Ndour nag moom mujj nañ ko takkal na gratu docteur honoris causa ca université bu Berkeley source su moom def taxaw seetlu ci langue politique gi ak Cheikh gaawaan Wade mi jël juróom-ñaari dëggam nag teg ko ci table bi ci rencontre bi nga xamante ni premier ministre Ousmane Sonko doon na ko amal ak marchand ambulant yi nekkoon ci diwaanu Colobane moom Cheikh Gawane Wade di xamle ci biir yéenekaay bi ne premier ministre Ousmane Sonko mënta waat na marchand ambulant yi la dajee loon ca primature préfecture man li ma gëm-bëggëm mu di ñam doon recevoir nekkuñu ay vrai marchand ambulant ndax ñun ñi nga xamante ni am nañu association ca Colobane kenn woowuñu de kenn woowuñu kenn invité wuñu kon li ma gëm-bëggëm mu di mbir yi mbiru politique la woon ay militant Pastef dong ñoo defoon mobilisation dem wuy ji seen chef de parti premier ministre Ousmane Sonko ca primature bu ñu bëggee nag dëkk bi dox nañu jël wàllum politique nag tegee ko moom Cheikh Gawane nag ca Colobane moom nag Cheikh Wade mu ngi xam ne ci biir yéenikaay bi ne directeur cabinet wu ministre Yacine Fall ak Serigne Dieye amul luñ dul def fi mu toll nii laa la wax pour fay coow lii ay coow dafa am de ca Colobane ba léegi si ñu wax ak yéen nguurug Sénégal gi na bu bëggee réussir secteur informel bii dana ko fullaal bañ koo politiser danañu xam ne tamit ne secteur bi ni mel nekkul ay marchand ambulant dong fa nekk ndax menuisier yi ca la ñu bokk mécanicien yi ca la ñu bokk ñoom ñëpp ñooy def occupation anarchique waruñ leen a fàtte ñoom ñooñu di lijjanti rek nag ay mu xam ne ci biir biir yéenekaay bi ne il faut que sunu autorités yi bees yi nag def très attention ndax gis nga déguerpissement yi nga xamante ni ndaw ñi dañ cee mer ba futt bombe à retardement la de à tout moment nag mën naa explosé wu ndax jeunesse bi mënuñoo toog di xaar la ñu yoroon kës néew di ci yëngatu ñu xañ leen ko te joxuñ leen leneen kon nag phénomène u déguerpissement yii bu yóbboo sunu autorités yi bees yi def ci très attention yemu ca moom Cheikh Wade ndaxte te mu daal di 2023 kon nag yéen nguur yu Sénégal def leen très attention yéenekaay bi ca wet ga tamit di ñu xamal ne Bougane Gueye Dany de amul lu mu yekkul nguur gu bees gi lépp lu mu amoon ci xemee laa la wax sotti na leen ko dem na sax bay woo ambulance ne kaay leen ngeen sauver Sénégal ndax pour moom Bougane Gueye Dany depuis ba nguur gi ñëwee ci réew meeg léegi def nañu téeméeri fan waaye téeméeri fan yépp ay gént la jeunesse bi di xaru nag ci barsak barsak gi projet yi nga xamante ni lañ leen digoon leen yépp nag ndekete la yaakaar askan bi yépp tas Bougane Gueye Dany yemu ca ndaxte nee na tekk tekkaaralu Ousmane Sonko jamono ji teewul rek moo di dafa amul solution su amoon solution laa la wax ci immigration clandestine bi konoon teg nañ ko ci taabal bi ba ndaw ñi mën a toog ci seen réew waaye booy xool le premier juillet bii ñu génn rek ñoo ngi wax lim gu takku ci immigration clandestine lii di symboliser ab échec boo xamante nii yaakaar gu tas la nag ci ndaw ñii lii moo tax ñu daal bëgg a geddaat Sénégal jaar ci barsak barsak gi bugaan gay dana yemu ca ndax dafa comprendre trahir bu dee Babacar Diop nag di président dooleel Khalifa Sall moom nag li muy conseiller nguur gu bees gii surtout ku ci mel ni Ousmane Sonko mooy mu def attention rek wàññi communication bi tey liggéey moom deuxième adjoint maire Grand Yoff bii li mu xamle mooy problème yi moom mu ngi fi léegi si kon nag liggéey la ñu a soxla ko ay détails enquête yéen kaay ne li jaaxal ñëpp kay moo di tekk-tekkaaralu ngand yi ñu ñu gënoon a yaakaar ne ci opposition bi Malick Gakou seen tekk-tekkaaral gii daal jaaxal na ñëpp ay ancien candidat présidentiel yoo xamante xamal nañu ne fii ak élection yi ay relation yu bees nag mën naa judd na ci langue politique gi surtout nag ñeel opposition bi yenn ci ay leader ànd daal dem ci élection législative yi naka noonu tamit la séentoo waa Yewwi Askan bi ànd ak coalition Diomaye président ngir mën koo jàppale ci projet bi vox populi des ci téeméeri fan yi nga nga xam ne jiwoo président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko am nañ ko ci nguur gi yéenekaay bi nag dalal Abdou Latif Coulibaly mu jël juróom-ñaari dëggam teg ci table bi ne dafay defal bilan nguuru Bassirou Diomaye Faye gii dem sax bay xamle ne téeméeri fan yi day ay téeméeri fan yu promesse la promesse yoo xamante ni kenn te néeru ko nag li ñuy def fi mu toll ni ak lañ doon wax sa fay de man sax mën naa jàpp ne téeméeri fan yuñ defagum def nañ ci ñaar yoo xamante ni ni sénégalais yi dañuy jaawale sax président Bassirou Diomaye Faye ak ko waaye bu fekkee ne président Diomaye Faye moom nangu na situation bi ni mel moom amul benn problème ñu ne Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye waaye nag am na yenn yoo xamante ne nii kenn rek moo ci mën a jël responsabilité am il faut que su boobaa kenn ki reculer bàyyi kenn ki mu daal di doxal dem na tamit bay xamal premier ministre Ousmane Sonko ne il faut que mu comprendre ne moom du président de la République nay yem ci li nga xamante ni moo di responsabilité am tey nëbbatu wàññi communication am Abdou Latif Coulibaly yamu ca xamal na tamit nguurug Sénégal gii ne il faut que ngeen bàyyi xel presse bi moom nangu na ne kuréelu presse yi nag dañoo war a fay impôt waaye xanaa balaa ngay fay impôt daal di fay nag say employé bëri na ci entreprise yoo xamante ni dañoo nekk ci ay jafe-jafe pour mën a fay seeni salaire kon nag responsabilité état bu Sénégal mooy jàppale leen ci wet gi yéenekaay bi ñu xamal ne parti socialiste de ñoom ñoo ngay organiser nag sargal Ousmane Tanor Dieng cinquième anniversaire de disparition bi am nañ ci sax yeneen i initiative yoo xamante ni bëgg nañ ko cee amal bokk na ci jël seen salle de congrès bii nekk ca seen Tanor Dieng waxtaan tamit ci yenn ci ay perspectives seen parti bi ak yenn ci yoo xamante ni namm nañ koo def ci yi di ñëw ginnaaw ba tey it bi des ci kàddu Bougane Gueye Dany mu jël ay kàddu nag jagleel ko premier ministre Ousmane Sonko lu lool tekk tekkaaralam ci ndawi Sénégal yi di ñàkk seen bakkan ci barsaak barsaak gi mu jàpp ne noppek Ousmane Sonko bii du dara lu dul preuve d'échec rek preuve échec la di symbole tamit ci yaakaar bu tas ci ndaw ñi lii doo nga tax nag ndaw ñi dem ci barsaak barsaak gi te bu ñëw xool ba léegi sii ni Ousmane Sonko waxul ci drame bi nga xamante ni am na yoonu Mauritanie gi nga xamante ni lu mu néew néew ñoo ngi wax ne juróom-ñetti fukki ndaw ak juróom-ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan bakkan nguur gi ne tekk tekkaaral rek lii Bougane Gueye Dany lu ko lool ca wet ga tamit Amadou Ba moom wax na ci xalaatam jàpp ne da nguur Sénégal gi dañoo war a créer ay conditions yuy tax ndaw ñi nag daal di am yaakaar ci réew mi toog jàpp ci doxalinu réew mi waaye suñu leen bàyyee nii te leen dimbale wuñu leen seen yaakaar dina tas te mooy indi rek nag barsaak barsaak gi en tout cas ci barsaak barsaak gi yéenekaay bi xamal nañu ne yi ñu génn nag lañ proposé président de la république mooy ñu jéem a criminaliser képp koo xamante ni nii yaay jël ndaw ñi di leen yóbbu ci barsaak barsaak gi moo xam ñiy dem la moo xam ñi leen di yóbbu ñu criminaliser rek dossier yooyu xanaa soo xamee ne boo yóbbee ay ndaw ci barsàq barsàq gi ca kaso ba nga jëm te yow miy demee tamit bu ñu la jàppee ci kaso bi nga jëm xanaa su boobaa dinañu wàññi dem ci barsàq barsàq gi <laughs>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

sa yaram jokkool ak ñun ci 77 604 07 71 pharmacie Al Maktoum daal seen jàmm seen wirgu yaram ak naataange lii rekk moo ko tax a jóg jaaraama pharmacie Al